diine yonent amul juddu. diine yonent bi xamul juddu moom. amul xeet. xamul xeet. amul dara. xamut dara. xam ko topp ko rek. moom da koy xam topp ko rek jàpp ko. waaw ku la mën a jur. ak ku la mën a jur nag. rek yonent daal di lay jur. yonent daal lay jur rek. su la yonent juree. bu la yonent bi juree. te xam lu woo diine ji toppaloo ko. te ji toppoo diine ji. jotewut a yow dara. jotewut a yow dara moom. jàng nañ ci seer bi ci guddi gi. jàng nañ ci wéy ci guddi gi. soloy Abu Lahab. soloy Abu Lahab. Abu Lahab ak Abdoulaye mi jur yonent ñoo bokk ndey ak baay. Abu Lahab ak Abdoulaye mi jur yonent bi ñoo bokk ndey ak baay. waaye mooy noonab yàlla bi gën a màgg. waaye mooy noonab yàlla bi gën a màgg. ba léegi kurom kurom bàmmeelam ba ca Makka war nga ko sànni xeer. ba léegi kurom bàmmeelam ba ca Makka war nga ca sànniw doj. ku doon rek kay jëriñ kon Abu Lahab. su doon rek kay jëriñ. kon Abu Lahab Abu Lahab du demee noonu kon Abi demee noonu xam ngeen ne. gëm leen yàlla. gëm leen yàlla. topp leen yàlla. topp leen yàlla. gannaaw gi nag. gi nag. liggéey leen lépp lu ngeen bëgg a liggéey. liggéey leen lépp lu ngeen bëgg a liggéey. jëflante leen nag bindee fii lépp lu leen soob. jëflante leen ak bindee fii lépp lu leen soob. dalee ci jabar yi ak doom yi. dalee ci jabar yi ak doom yi ak jege ñaale yi. dëkkandoo yi ba ca jaamur ya. ak dëkkandoo yi ba ña. waaye soo toppul yàlla nag. waaye boo toppul yàlla. gëmuloo yàlla. gëmoo yàlla. loo defal ci mbindeef yi lu rafet rafet dara ngelaw la rek. loo defal mbindeef yi. lu loola rafet rafet ngelaw la rek. yal na ñu yàlla may jàmm. yal na ñu yàlla may jàmm. yal na yàlla def jàmm ci suñu réew. yal na yàlla def jàmm ci suñu réew. yal na yàlla def jàmm ci suñu réew. yal na yàlla def jàmm ci suñu réew. yal na ñu yàlla may nawet ab barke. yal na ñu yàlla may nawet ab barke. yal na ñu yàlla may nawet ab barke. yal na ñu yàlla may nawet ab barke. yal na ñu yàlla may ngóobeef yu rafet. yal na ñu yàlla may ngóobeef yu rafet. te def ci barke. te def ci barke. barke rek a am solo. barke rek a am solo. lu mu nekk ñu xam ko lu mu nekkul ñu xam ko. lu mu nekk ñu xam ko lu mu newul ñu xam ko. ngóobeef yi lu ñu bari bari bu ci yàlla deful barke duñu jëriñ dara yëf yi lu mu bari bari bu ci yàlla defut barke du jariñ dara. lu mu néew néew su ci yàlla defee barke ñëpp. lu mu néew néew bu ci yàlla defee barke ñëpp xaj ci. yàlla nañu yàlla may ngóobeef yu bari yu rafet. yàlla nañu yàlla may ngóobeef yu rafet yu bari. te def ci barke. te def ci barke. te lépp luñ sonnee. te lépp luñ sonnee. yal nañ ko jëriñoo. yal nañ ko jëriñoo. yal na ko suñu réew jëriñoo. yal na ko suñu réew jëriñoo. yal na ko suñu diina jëriñoo. yal na ko suñu diina jëriñoo. yal na yàlla yëkkati diine lislaam. yal na yàlla yëkkati diine lislaam. yal teral lislaam ak jullit ñi. yal na yàlla teral lislaam. ak jullit ñi yal na yàlla dimbale lislaam ak jullit ñi. yal na yàlla dimbale lislaam ak jullit ñi. bayti maqadis yal na yàlla xettali bayti maqadis yal na ko yàlla génne ci loxol noonu yàlla ya yal na ko yàlla génne ci loxoy noonu yàlla ya Palestine yal na ko yàlla delloo julli ña di arab Palestine yal na ko yàlla delloo julli ña kay arab Sina yal na ko yàlla delloo julli ña di arab Sina yal na ko yàlla delloo jullit ñi kay arab yal na yàlla xalak xéefari bani israil yal na yàlla xalak xéefari bani israil yal na yàlla damm seen nguur yal na yàlla damm seen nguur yaa bi yal na yàlla damm gépp nguur gu leen di dimbale yal na yàlla damm gépp nguur gu leen di dimbale yal na yàlla damm jëpp doole ji leen di dimbale yal na yàlla damm jëpp doole ju leen di dimbale yaa rabbi yàllaay buur dëgg-dëgg te moo man lu ne yàlla def loolu yàllaay buur dëgg-dëgg moo man lu ne yàlla def loolu yaa rabbi waaye yàlla delloo ji li ñu seen yoonu dëgg wa yàlla na delloo jullit ñi. yàlla na delloo jullit ñi. ñu xaw ci yoonu alquran ak sunna. ci yoonu alquran ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. te bàyyi caaxaan yi ñuy faraatu di ko jëlee ci noonu diine yi. te bàyyi caaxaan yi ñuy loolu rek leen delloo gannaaw. loolu rek moo leen delloo gannaaw. dara mënu leen a jëme kanam it lu mooy alquran rek. dara mënu leen a jëme kanam it lu mooy alquran rek. mboolem ñi méngoo mbiri jullit yi mboolem ñi méngoo mbiri jullit ñi yal na leen yàlla xawloo ci yoonu njub yal na leen yàlla xawloo ci yoonu njub ñu jàpp ci téere yàlla beeg sunna si yonent bi ñu jàpp ci téere yàlla beeg sunna si yonent bi kon teraanga ji dana del si mel na meloon kon teraanga bi dana del si mel na meloon te lislaam te lislaam su amee doole boo amee doole doomu adama yëpp na ci jàmm doomu adama yëpp na ci jàmm ndax moom diine jàmm la ndax moom diine jàmm la jàmm ku nekk la wax jàmm ku nekk la war jàmmoo ku nekk la lislaam wax moom jàmmoo ku nekk la lislaam wax su fekkoon lislaam am doole yi lu dul lislaam am léegi su fekkoon ne lislaam amee doole yi lu dul lislaam amee léegi ban xay yu bëri yi ci àddina si doo am de kon xay yu bëri yii ci àddina bi du am ba Omar ibnul Xataab di àtte loolu amul ci àddina de ba Omar ibnul Xataab di àtte lii amul ci àddina ba Omar ibnul Abdul Aziz di àtte loolu amul ba Omar ibnul delloo ci dëgg yàlla nañu yàlla delloo ci dëgg te jëriñu ci dëgg te jariñ ñu ci dëgg. yëkkati ñi ci dëgg. yëkkati ñu ci dëgg yaa rabbi. Omar ibn Khattab na ne. Omar nee na. dëgg suufeel ma. dëgg suufeel ma. te néew na bu mu xamee. te néew na nag bu mu xamee. moo gënal fenn yëkkati ma te néew na bu mu xamee. moo gën moo ma gënal fenn yëkkati ma te néew na bu mu xamee. yal nañu dellu ci dëgg ñun ñëpp. yal nañ dellu ci dëgg ñun ñëpp. bu ñu yàlla yëkkati yal nañu yàlla yëkkati ak dëgg. bu yàlla yëkkati yal nañu yëkkati ak dëgg. yal nañu yàlla dimbale. yal na ñu yàlla dimbale. yal na yàlla boole xol yi ñooñu Sénégal. yàlla boole xol yi ñooñu Sénégal. ñi amee noseb Sénégal yal na leen yàlla xiir ci yoonu njub. ñi nga xamee noseb Sénégal yal na leen yàlla xiir ci yoonu njub. yal na leen yàlla xiir ci lay jëriñ Sénégal. yal na leen yàlla xiir ci lay jëriñ Sénégal. dimbale leen ca. te dimbale leen ca. yàlla mën na loolu yàlla na ko def. yàlla mën na loolu yàlla na ko def. dara jafewu ko. dara jafewu ko moom yàlla. ñu ko koy ñaan. ñoo ngi ko koy ñaan. te yéen ñëpp na ngeen ko ñaan. te yéen ñëpp ñaan leen ko. te mbooloo mi. mbooloo mi. lépp luñ daje ñaan ko yàlla dana leen ko may. lépp luñ daje ñaan ko yàlla dana leen ko defal. barab bi lu fi nit ñaan dana nangu. barab bi lu fi nit ñaan dana nangu. ndax fu ñuy wàccee fu ñuy jeexalee burdu fokk yonent bi wàcc. ndax fu ñuy jeexalee burdu fokk yonent bi wàcc fa. buñ ko gisee buñ ko gisut bi ji burdu bi burdu bi jeex rek la ñëw. buñ ko gisee buñ ko gisut bu burdu bay jeex rek la ñëw. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. ndem fanaanu a ak ñun sax. ndem sax fanaanu fi woon ak ñun. te ñooy hendu bu teewee ak ñun. bu teewee ak ñun. lépp lu ñaan suñu borom danañu ko may. ci lépp lu ñaan suñu borom danañu ko may. yàlla ñu may mboolem liñ ñaan ak liñ ñaanut. yàlla ñu may mboolem liñ ñaan ak liñ ñaanut. yiw àddina ak àllaaxira. yiw àddina ak àllaaxira. may leen ko may ko seen njaboot. may leen ko may ko seen njaboot. ñu teewut am na mu fee teew ñëpp. ñu teewut. te bëgg fee teew ñëpp yal nañu yàlla booleeg ñoom lépp lu ñu ci ñu sedd yal nañu yàlla booleeg ñoom lépp lu ñu fi sedd képp ku ñu dénk ñaan yal na ko yàlla may booleeg lu mu ñu sedd képp ku ko dénk ñaan yal na ko yàlla may lépp lu mu ñu sedd gàmm gu nekk yal na leen fekk ci mbir ma gën a baax gàmm gu ne yal na leen fekk ca mbir ma gën a baax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa